ah kii mooy Koungheul kii mooy Koungheul Gare sëñ Modou moom mooy récupérer carte d'identité yi pour parrainage bi sëñ Modou Boussa Dieng mu ngi jàppale doomu ndeyam Abdoulaye Pira. sëñ Modou mu ngi jàppale doomu ndeyam Abdoulaye Sika directeur ECOTRA ah kon tey mbir waa noonu waa Koungheul seen jëf rafet na sargante yi Koungheul waa yi la

Abdoulaye Silla, si biir l'instant délégation yi groupement yi groupement Khadija Ba mu groupe fi tàccu leen le groupement des aussi groupe fi groupement groupement groupement àndu takkawu liggéey ñoom tamit ñëw neen groupement trois clés ñetti caabi dirigé par Aïssatou Seck ñoom tamit ñu ngi fi. kon tey ñii ñëpp dañoo ñëw rekk pour jàppale la. sëñ Modou nag yaa ñu ko jaral ak ab président Ablaye Sylla mu nekk ku baax dama dem Touba ren gis mu defar xabru sëñ Fall bi. lu ne mu defar ko Sénégal kooku bu laajee réew mi suñu xel war na mën a dal. ku ci nekk am na foo nekkoon nag mais réew bi moo ko laaj dafa laaj lu bare bare bare bare dañoo sonn nag si digge bi suñu maire yi fi toog nii seen GIE dañ leen a digga digga dig ba sonn koo si dem benn jàmbar bi leen lay wax bu politicien yi jotee ñu ñëw jël leen bu paasee ñu nax leen buñ leen soxlaa woowaat leen loolu nag dafa doy moo tax ñu jël suñuy engagement ànd ak président Ablaye Sylla docteur tout ça c'est grâce à vous ici à Kungel, malgré sa daradia, wane nga si vous êtes prêts à nous aider si vous êtes prêts à travailler avec le président Abdoulaye Silla, nous coûtez ci nekk photocopie carte d'identité électeur

différentes ASC yu fi ak seeni supporters. donc dina, wax ak ASC yi du yàgg mais li may tontu rek ak soxna yi mooy man dafa bokk ci sama logique bariwul lu may digaate du sama affaire digaate bokkul ci sama affaire parce que dama ne dama ne élection quatre mois moo ci des. Comme tax après l'élection de nga rus du de Modou Bousso Dieng wante nag Touba rahmatullahi alayhi wa anhu dafa waxoon sama mam Seigneur Massamba toogal fi luma am ñu bokk ni ngeen xam ne yéen lu ma am ñu bokk te fi ma koy commencé fii Baye Dame bi ñu wax né ma ngi fii amul climatiseur jënd na climatiseur quatre chevaux bu subaa Ibrahima dina ko jël ci Touba. dama ne suba la wax de waxuma ginnaw suba suba suba Ibrahima je vous donne rendez-vous midi dinaa la jox léegi carburant nga fekk ma Touba suba midi ak Baye dam ma jox len ko bu soobee yàlla ma jox len ko bu len président di jox xëy dina ëpp lolu mais lolu sëñ Modou Bousso mo len ko jox ci turu président Blaye Sylla xam lu may wax ngir mu leer chaque fois parce que lii mooy liggéey bi c'est le terrain man du ma wax kenn lu ma gëmul lii que nous ñu continuer ko faire le terrain pour mën faire le Abdoulaye le 25 février 2024 parce que si vous wax leneen le terrain bi le 26 février di nga xool Abdoulaye Sylla sëgg dama ne sëñ Modou Bousso Dieng du xool Abdoulaye le sëgg sëñ Modou Bousso Dieng xoolul woon Abdoulaye Wade sëgg xoolul Karim Wade sëgg xoolul Macky Sall sëgg du xool Abdoulaye Sylla sëgg jamais kuy xool nit di sëgg ko xool xam ko dama ne sëñ Modou Bousso Dieng du xool kenn sëgg lim lu ñu war nañ ci nekk muy terrain bi ku jàppale Abdoulaye Sylla terrain baa ngi nii terrain bii daal mooy maye ndam ëllëg ba 24 février incha allah waaye rëkk bu ma am ci yéen kersa fii yaakaar naa dinañ fi am ndam bu yalla je vais aussi rendre compte fidèlement au président Blay Sylla yéen tamit rikwaay buñ joxé résultat yi fi na fi Ablaye Sylla gagné au moins 50%. pour man moy tax ma sigi loolu tax moy ma am ndam te it moy tax sama and ak yéen continuer pour toujours man nak duma ma xaritu élection duma ma xaritu circonstance man dama ñëw and ak yeen à jamais parce que aduna yamul ci benn bës te képp koy japp pour élection 4 mois len déssé élection bu jallé ñu bëd dinañ am gatcha élection jërul trahir parce que tu trahis 4 mois après mu jall de nga sëgg ñu bayyi xel loolu